Cheikh Benzeloun mi nga xam ne sax moom fekkee na cérémonie d'installation boobu dafa amoon ab malaise ca ginnaaw ko ñu yóbbu ko hôpital régional bu kaw Kaolack kon fa la ñàkkee bakkanam Ousmane Sonko démb da doon daje ak taskatu xabaar yi ngir daal wax ci xew-xewu réew mi gannaaw nag ñu ko laajee ay laaj yoo xam ne dafa jëm ci mbir mi ko boole ak aji saar moom nee na yoon amul nu mën a def ba teg ko ay daan ci mbir moom ndax mu ne mbir mi ab complot bu ñu nasoon la te mujjeewul sotti moom nag nee na ñaari mbir dong moo mun a am ci dossier bi soit ñu seetal ko ci mbir mi wala boog ñu classé dossier bi sans suite maanaam ñu jël mbir moomu daal tegee ko nale fàtte ko direction générale de élections ñoom nag euh, démb daje nañ ak ñi nga xam ne ñoom ñooy parti politique yi ak it ñi ñuy woowee personne indépendante euh, ñoo xam ne bëgg nañu bokk ci li nga xam ne moom mooy élection législative yu ñu war a amal le 31 juillet 2022. daje boobu nag li ko waraloon moom mooy expliqué leen nan la ñu war a collecter wante itam nan la ñu war a remplir li nga xam ne moom mooy fiche de parrainage yi collecte de parrainage boobu nag euh, war na am ci diirub ñaari weer. xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy fële ca Kenya foofa nag lu toll ci juróomi nit lañ fa faat ci fu ñuy wax comté bu Lamu te ñi jàpp nag ñoo ko def moom mooy activiste Shabab yi ci juróomi nit yooyu nga xam ne faat nañ leen ñeent ya ay ouvrier lañ yoo xam ne ñu ngi liggéey ci benn usine chinois boo xam ne day defar ay tali ñu koy woowee China Communication Construction Company ka ca des ab waay la boo xam ne da doon romb ak motoom bal dal ko mu faatu xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon muy guerre ba am fële ca Ukraine bésub tey nag moom mooy fukkeelu fan bi ak juróom-ñaar gannaaw bi nga xamee ne Russie song na leen ak léegi fi mu nekk nii nag soldaalu Russie ya wër nañ li nga xam ne moom mooy capital ba di Kiev te it yaatal nañ seen cong yi ci ville bu ñuy wax Dnipro ca ville bu ñuy wax Mariupol nag ña fa nekk daal ñu ngi dund lu métti bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy médecins sans frontières